bu ñenn ñi di yëngatu ci wàllum feer yi ñeneen ñi ñu ngi jéem a yëkkati ay dal alvéolaire jaarale ko ci ay jumtukaay yu mucc ayib ngir teg ko ci étage bile ñu ngi fii ci liggéey bi jëm ci këru xasida yi noone lañu doon yeggalee li desoon ci dal alvéolaire yooyee nga xamee ni mi ngi jëm ci premier étage plancher haut bile. kon tey li nga xamante ni moom lañ jàppoon mooy euh, li nga xamante ni moo doon. tëj dal bi nga xamante ni buñ ko fàttalikoo ay jamono joxe woon nañ app ne balaa màggal incha allahu rabbi bëgg nañ kaa tëj sun borom suturaal nañ ba tey jii ñuy wax a génn si la ñuy teg li nga xamante ni mooy dernière dal yi daanaka ay juróom benn plaque yoo xamante yuy def 9 mètres cinq moo fi yuy def juróom juróom-ñeenti mètre yu teg tuuti moom la ñuy teg nii daanaka ay ñett moo ci des pour dal bi yëpp daal di tëju. liggéey bi jëm ci teg dal alvéolaire yooyu ñu ngi ko matal ginnaaw si ñetti fan ak xaaj yi nga xamee ni ñu seen xam-xam màcc ci liggéey bi lee sëgg nañ ci ba daal di koy matal. donc loolu nekk na ci li nga xamante ni moom lañ nekkoon tey donc tey moo nekk ñeenteel bi fan si ñu teg loo xamante ni tolloo na ak junni ak euh, ñeenti téeméer yu teg tuuti si ay mètre carré. yoo xamante ne teg nañ ko ci ay dal si ñeenti fan yi tey mooy ñeenteel bi fan daanaka tombeek tisbaar di waaj jot mën nañ nekkoon si ñetti fan ak genn wàll si lañ teg junni ak euh, ñeenti téeméeri mètre yoo xamante ni teg nañ ko ci wàllu dal li nga xamante ni moom moo jëmoon ci étage bu njëkk bi li ko doon tëj. boo demee ci geneen wàll gi ñi nga xamee ni ñoo yëngatu ci mbirum courant ñi ngi doon amal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu câblage réseau sonorisation ak lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu branchement ci bile chantier mu jëm ci kër këru xasida yi yoo xamante ni moom la ñuy wax ay frottage yoo xamante ni dañ koy dugal ci biir euh, liggéey yi ñuy def ngir bu noppee mu nekk yoo xamante ni day euh, encastré wu day suulu loolu nag liñ ci gis jàpp nañ ne lépp électricité la waaye dafa am yeneen yum àndal yu demee ni ki informatique yu demee ni ki également sécurité incendie ak euh, yeneen yoo xamante ni informatique la ay télécom ay vidéo surveillance et sonorisation yooyu ak sono mooy yooyu yëpp moom lañ nekk di di passé nii ngir mën a waajal li nga xamante ni moom moo siy topp dal de compression bi. ginnaaw si tegub dal alvéolaire yu yi nga xamee ni amal nañ ko ci diirub ñetti fan ak ñi jiite liggéey bi bile jëm ci këru xaside yi dinañ mën a sumbaat leneen li nga xam ne nag mu jëm ci tegum dal compression yi lee